fii ci diwaanub njaareem ni nga xam ne at mu jot noonu lañ koy amalee muy marche boo xam ne dañ koy organiser ci benn fan ci weeru safar loolee ren ji amalaat nañ ko ci marche bu yaatu boo xam ne kilifa yu bëree bari teewe nañ ko ànd kook maire bu dëkk bi di Malick fal ak mbooleem kilifay diine yi ak kilifay aada yi ànd kook taalibe yépp fi nga xam ne moom moo di ci jumaa njaareem ji fi la mbooleem taalibe dajaloo ci bi 17 heures jotee rek ñoom ñëpp ñu àndandoo kilifa yi nag am na kàddu yoo xam ne jot nañ ko faa yëkkati laata ñuy àndandoo dox dugg biir njaareem. kon nag loolu ñu ngi sant yàlla bu baax te xam ne loolu rek mooy liggéey Serigne Touba ndax euh, Serigne Touba moom ñun mënuñu koo fay lépp luñ ko defal rek euh, xëy na dañuy jéem rek dañuy jéem rek wane suñu yéene rek waaye waaye amuñu fay amuñu amuñu amuñu amuñu yitte ak kàttanu fay ko. ba na ñu ki sant taalibe yépp daal di ñaan li ñu dëgg weer ñu ngi nga xam ne nii tey jii ñu ngi jëm ci màggal Tuubaa gi dafa nekk juróom ñaar ci kanam ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ni moo eh, ñu fekk ko ñu door ko tey ba ba bis ba yàlla defal ñu ci xew yaatoo yaatu ba ku ci la yéene da am ci màggale ko sëriñ bi da eh, koo def ci anam yu ñu gën a rafet waaw ci profité nag di ñaan tam suñu suñ ñi nga xam ne moo fi nekk suñu waa tey suñu jàkkaar ñëpp xam nañ taxawaayam moom bañ na ko ba daanaka moom murid sadix la murid sadix la kon nag suñu yàlla baaxee fi nekk suñu waa tey bii doon taalibe bu ñun loolu loolu sant yàlla man la docteur Soumaré Souleymane Soumaré euh, directeur euh, général ONFP ñu ñëwoon tey jii si safar bi muy premier safar si tuuru ministre de la formation professionnelle de l'emploi et de l'artisanat monsieur Dame Diop bi nga xamante ni yàlla dafa dogal tey nekkul biir Jurbel waaye ñëpp xam nañu taxawaayam si bés yu mel nii muy taxawaay boo xam ni tam daf koy am saa su ne en tant que taalibe waaye itam muy taxawaay boo xam ni da koy taxawal ki nga xam ni moom mooy président Macky Sall moom itam mu nekk taalibe suñu ñëw tey nag ñàkk teewam si biir Jurbel moo tax mu yabal ñu safar bi nag dafa nekk loo xam ni lépp loo xam ni dañ ko siy daf xëy na am na ay ndombo yoo xam ne am nañ ko waaye taalibe bi la jiital ndax dafa nekk bés boo xam ni bés bu màgg la muy premier safar di waajal wàccaayu màggal bi nga xam ni mooy 18 safar mu nekk bés boo xam ni saa su ne dañu fi teew mbooloo mi itam di jurbel waaye ñëpp génn mu nekk loo xam ni bés bu màgg la jurbel itam nekk loo xam ni bés la si waa jurbel bés bu mag mu nekk jurbel ndax tey ku ne bëggoon na lii xew fii tey jurbel mu xewee si région bu ne waaye yàlla xëy na waa jurbel la ko jagleel kon boog tànk yu ñu fi indi tey mooy ay tànku taalibe ay tànku murit ay tànk yoo xam ni bés bi mënuñu ko ñàkk a teewe marché bi nag daayira bi nga xam ne moo di safinatul amaan te nekk fii ci njaareem moo koy taxaw ànd kook mboolem taalibe yi ak kilifa yi jërëjëf sëriñ bàmba jërëjëf sëriñ bàmba jërëjëf sëriñ bàmba jaajëf fee xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfee xaadimu rasool. cheikh bamba yaay sunu assurance. bamba. say ndimbal raw ay finance. sëñ bamba. yow la nu jox sunu confiance. jaajëfati xaadimu rasool. am la moo am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom non violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul nañu sant xaadim rasool sag wàllu raw na ambulance. bamba. sag dégg raw na fréquence. sëñ ma doonoon sa résidence. surveiller cey xaadim rasool. tubaab yi ñoom dañ la daan menace. bamba. buur yi fi newoon daan la offense. sëñ bamba. woon benn défense. budul yoneen xaadim rasool gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ Tuubaa gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñépp toog di assistance ngir bëgg la xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan ku ñu fa relance ca gabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba murit ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba màggal la wootee du ambiance borom safar sa morom xaadim kon tey ji bu see ñun waa Njaaréem ñu génn nekk ay milliers de milliers de milliers de personnes di sant sëñ Touba man bu nee maire dëkk bi ba sama ay damay sant waa Ndiar yëpp di sant waa média bi di leen sant yéen ñëpp nga xam ne sëñ Touba nag képp ku fa sant ku man mi ngay sant la daal ci gàttal daal vraiment ñu ngi sant sëñ bi di sant waa Ndiar di sant année ñu ngi jël di dox. quatre heures de temps cinq heures ba neuf heures dañ koy dox ndax woowu ñu nag ndax coono bii nag ah. jàpp na sëñ Tuubaa moo sol seen i moo sol seen i tànk yi. sol seen i yaram ba lépp lu ñuy def dañ koy yëpp mu ngi sant ah bii nii. maa ngi koy waaw. maa ngi koy maa ngi koy am. sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfee xaadimu rasool. Cheikh Bamba yaay sunu assurance. Bamba. say ndimbal raw ay finance. sëñ Bamba. yow la jox sunu confiance. jaajëfati xaadimu rasool. am la moo am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom non violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul tendance nañu sant xaadim rasool sag wallu raw na ambulance bamba dégg raw na fréquence sëñ ma doonoon sa résidence surveillé ci xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne daan la offense sëñ bamba woon benn défense budul yoneen xaadim rasul gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasul cay sëriñ Tuubaa gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñépp toog di assistance ngir bëgg la xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan bële ku ñu fa relance ca gabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba muritoo raw na alliance Serigne Bamba ku woote gis présence ummanti doon Xaadim Rasool بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ووجه الى كل من تعلق ببركات قولك وما كان الله ليضيع ايمانكم امين يا رب العالمين انك انت الوهاب ودود كلي أبدا بالود والتهمني عن ضرر وكد ودود كلي أبدا بالود والتهمني عن ضرر وكد محوت عني الأذى والضرر مني تقبلت الحسان الدرر إلي أكبر جزاء البخل مع جزاء فرحة السباخ كسبي توحيد ومدح للنبي عليه تسليم غفور المذنب اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن نافع وأفلخا أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بيضا استداري لوجهك الكريم هب لي كل ما أخذته منك وكل علما لك كتابي موقنا بأنه خيل وحب فائز بالمن هديتني هداية الهداة وليكن تمنية السادات لن ينتهي بالمصطفى القلوبا ولي كنت وشر المطلوبا يجود لي كن فيكون منك بما يسر قلبي عنك دفتر الكريمة وقراية الطيب بجاه من سمعته المطيب يقود للمختار والآل مع شهابه قرا يقيني طمعا على الذي رافقني في سيري صلاة باقي يجود ميري اكتب لمن أخذه مردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا رب يجعل المريدين معها في حسنك الحسين والصمل جمعا دي زيارة باخ سيد محمد الفاضل مام الشيخ محمد البشير خامني مو توغال سيرين بي دك بي te taxaw fi taxawaay bu rafet moo xam ne xol yëpp sedd na ci ñëpp gërëm nañu te doomam ju baax ci toog nii sëriñ Abdul Hakim maa ngi koy nuyu bu baax moom itam di ko ziyaara di ko ñaanal fan gudd wa ànd ak wér maa ngi nuyu ci loolu bu mu noppee sëriñ di ko ziyaara bu mu ngi ci peggam di nuyu bu baax monsieur le maire Malick Fall mu ngi tam muy taxawaay taxawaayam ci dëkk bi taxawaayam ci barab bu sell bi taxawaayam ci wet ci peggu nit ñi mbooloo mi ci lépp loo xam ne seen yitte la rawatina lu jëm ci mbirum sëñ bi kenn nattable ko waxoon naa ko taxawaayam bi di firnde lu bari ndax ba fi sëriñ bi di nag yaakaar naa ñeneen a fi nekkoon tey nag bu ñu demee baax si fii tey moom mu toog nii suñu wet ànd sax ak mbooloo mi kilima nga xam ne ndox nañ ko yëpp di taalibe duñ mën lu may santat yàlla waaye delloo jaajëfal Cheikh Khadim radiyallahu anhu radiyallahu anhu nafaana barakaatu bu baax te xam ne la waxoon rek kulliyati mu'jizatun ta'aqqarat wa xayru xayratin ladayka duqirat Sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw waaye tànki kanam rek la léppam ca kanam ñu koy nuyu di nuyu docteur Camara ci taxawaayam bu rafet moom itam bëggam dëkk bi yittewu mbirum mbooloo mi yal na ko yàlla fay moom itam bu mu jógee ci loolu ñu mbooleem daayira yi nga xam ne teew nañ fi yëpp ñu beral cant bu baax ñi nga xam ne ñoo taxawee mbir mi sëñ Cheikh Fall ak ñu mandal sëñ Mor ñu ñu ñëpp ay at a ngi ñu di ko def waxtu mu nekk ca kanam rek lay jëm waaye noonu rek la mën a mel ndax sëñ Tuubaa rek a tax ñu jóg te sëñ Tuubaa mbiram di dellu gannaaw moom kon nag yéen tam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di wax mbooloo mi itam di leen dalal ci fii ci albuqaatul mubaarak pàkk bi nga xam ne sëriñ bi waxoon ne mooy leeral pàkk yi fi la leer gi bawoo fi la dinaa mu nekk di tasaa leer gi ci àdduna bi yëpp di nuyu mboolem délégation yi ak fu ñu mën waaye ba damay dugg ci waxtaan dama am benn fàttali bu mu bëgg fàttali dafa am benn bis koor la sëñ Muntaxa yónnee Bassirou Soran nga xam ne mooy chef de quartier bi ci man maa ngi ci biir jàkka ji mu ne ko boo demee neel imam na wax ni ni leen bu ñu noddatee lépp lu ñuy def dañuy jàng wala dañuy waxtaan nañ ko bàyyi bu ñu julli ba loola sëñ Bassirou Soran yaakaar naa muy dégg mooy chef de quartier bi loolu tam ndigal la lu ma waxoon ne naa ko wax fàttali maa koy fàttali bu baax a baax euh, bu loolu jàllee nag xanaa wax alhamdulilah ndax bu ñu fàtte yàlla moo mu sàkk wàcce ni ci kaw suuf teraloon suñu maam aadama lool boo waxoon malaaka ne nañ ko su jot su jotal ñëpp ñu su jot ba mu des iblis te mu nekkoon seen biir du du malaaka waaye di woon jinne cosaanal jinne doon jaamkat yàlla bu sell ba tax mu nekkoon seen biir mu lànkoon na du su jot yàlla dàq ko génn ko ci kuréelu malaaka yi moo wax yàlla ne ko may ma ba dina tukki ma des ma faatu yàlla ne ko may naa la ko mu ne ko kon nag gannaaw dàq nga ma génne naa la génne nga ma ci digg yoonu siraatal mustaqim laay toog kenn du jàpp danaa jaar ci seen kanam jaar leen seen gannaaw jaar ci penk jaar ci sow yàlla na ko inna ibaadi laysa sama jaam ñi selal moom doo leen mën a daal kon iblis loola mos koo ba mukk te ci loola la ne yàqule na bëgg na ay gaay waaye nag naka jag suñu borom itam tam mu bëgg faaw mooy am newoon na ko sama jaam yi doo mën ci ñoom dara ñi nga xam ne ñoom gëm nañ seen borom te tege si yoonu moom du man ci ñoom dara yàlla moo tax mu yónni ay yonent bu ko neexoon nag mu bàyyi lay ba ba ñu egg si ne bëggee ma ko ay yonent yi yónni gannaaw yonent yi ay borom bi xam-xam ak ay awliyaay nit yàlla yu baax ba ki ci mujj xam muy suñu jaww ji suñu yaakaar Cheikhul Khadim mu ñëw ngeen xettali ñu xam ne xettali ñu rek mooy li nga traité te moo ko waxal ba moom. chebu bu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaa wa an akoon shafian li xaw mi wa an akoon xaadiman fi daw li tax ma waral sama tukki bi sori bi ma dem ci géej gi dafa juróom-ñettaali màgg tuuti moo di suñ borom moo am ay. garaat moo am ay daraja yu mu bëggoon a jox te bokk na ci nag xaadimu rasulullah jëwriñ ngeen tudd saa samti tool bi di wutu ko ci ak ci xeet yi waaye ma ñëw itam ngir xeetali sama nit nekk ko xam damay liggéey ba faw kon seen bi dara tax koo ñëw lu dul dimbale lu ak kon ma ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye itam ñu xam ne sëriñ bi wax na ne li ko tax a jóg wala yow li nga xam ne moom mooy moom moom la ngir xeetli nu mooy dundalaat diine ak yeesalaat suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon woowu la tànn du bees la yonent bi doon dund ak saxaaba ya moom la ñëw ngir dundalaat moom ngir andiwaat loola loolu moo ko bindal boppam diinun siwa islaamihi la yuhmadu عند الإله وبه نجدد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمده wane ne li ko tax a jóg rek mooy yeesalaat la Yonent bi saa sam doon dund ak saxaaba yi doon ko dund ah, yeesalaat sunu si Yonent bi aleyhi salaam loolu na li ko tax a jóg lu tax mu indi loolu sax moo di dañ maa sosoon ni ma naa soññe ci wàllu xam lu tax sëñ bi ñëw ngir indiwaat loola sëriñ bi daa wax ne hada wa innama alayhi almuxtafa li kasrati aljahli ala nnaasi iqtafa nee na bi doon dund saxaaba yi doon ko dund réer goo xam ne bare na ko tax na ba loola sànk na nee na réer ñàkk xam moo tax loola dem ba sànk kenn xamut mu teg ca tanabbahu yaa ayyuha subaanu xaadakum ilal hudal في أن في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة كل حين كاد ترى كرسم دار قد عفا في في الزمان لمدي الحنفاء وتبعدها سيم الشيوخ سبيل الهدى والنور والرسوخ إذ ترك اقتفاء آزار السلف لبدع خدوين بين الخاف من ين نوي سيرين بي wax yalla na len yalla jubal mom mi nga xamne moy xewala kon xam leen ni yëg leen ni sunu si yonent bi salaat salaatu salaam day sunu si yonent bi day yàlla na yàlla def ci jàmm xewal mucc arab borom kër la ñu ne rëdd kër ga sax kenn xamatul fu mu lu tax mu ne ndax ñu baax ne dem nañ sell dem nañ jikko yi kilifa yu baax ya dem nañ kenn toppatul ñu baax ñu jàll ndax biddaa rek boo xam ne ñi wut ñi leen wuti nekk nañ si loolu nag réer te bu mett bu sotti comme ko sëñ bi waxee wana na ma ngay xeex réer waaye ma ngay santaane am jàng bu baax a baax baax baax loolu moo tax bi mu jógee dafa séenee jàmmaarloog noon bi ñu ne ko da ngay kii tuumaal ko ba ci tuuma jooju ci lañ ko génnee wane ni kii day def ger sant daf leen wax ngeen dëgg de man damay jóg pour jihaad de waaye ñaar rek laay sukkandiku sama jihaad yi inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqaa abdan xadiman wal muhaymin shahid bi mu jógee di jihaad di xeex ak noonu di ngànnaayam li gën li ñu yoroon mooy xam-xam ak ragal yàlla kon yooyu fexe ba nit xam waaye fexe ba nit ñi ragal seen borom loolu ab soññale ci ndaw ñi buur waaye ndaw jëm ci xam-xam ndax kat ba lislaam di doo jóg di yonente bi képp ñuy dem ba mu toll na mu toll ñu dem ba lislaam demoon na ba Espagne euh, dëkk yu bari ci Europe ak feneen dugg ci moomeelu lislaam ñuy dem ba ñu ñi di bàyyi di bàyyi di bàyyi ba tey gis ngeen fi suñu egg tey te lislaam doon àtte lépp daanaka te sëñ bi ne war warul ko lu may réer rek dem nañ ba bàyyi loola kon nag loolu ab soññale si ñun ñu war a buur jëm ci xam ndax xam dong mooy la ñu mën a dimbale kenn du na mu foo xam leen rek ñu mën a dimbale ci ñu lii nu sëñ sëñ bi indil te dox ci ni nga xam ne lañ ci war mooy fexe ba xam ndax kat sëriñ bi kat nanguwut ku doxee ci coobaram daf ni yaa yoo subaanu in xiftum xadal fa xaddimoo taalluman ala amal eey waay yéen ndaw yi senes bi lay sëñ Tuubaa di waxal ba ngeen bañee gàcce kat mu ne a mu ne na ngeen jiital xam-xam balaa ngeen a jëf jëf ju àndut ak xam-xam baaxul nit ki lépp lu muy def sëriñ bi la mu santaane mooy mu teg ko ci ak xam gu leer naa ñu sëñ bi lislaam bi leer ñu la ñun lépp doon dund doon ko dund loola nag ngir ñu mën caa tege te mooy li sëñ yoon wi bi jaaroon ngir yeesalaat diine faw dañoo xam rek moo taxoon sëriñ bi ni fa saariu lil ilmi ajmaina li wa si leen yéen daw jëm ci xam-xam ngir jëm yàlla ci daw xala xabla tasaddoyi wala infiraadi bi nafsi wal atbaa fii tamaati balaa ngeen a jóg di jiite kenn balaa ngeen di woote ci dara balaa ngeen di feeñal dara mu ne fexe leen ba xam ba noppi kon loolu la Sëriñ Tuubaa santaane tekki loo xam ne ab digal la alayka yaa muriidu bi taallumi fa innahu mutahirun min zulami ey yow murid bi ey yow taalibe bi maa ngi lay dénk man Sëriñ Tuubaa nga fexe ba xam ndax nee na loolu mooy li man a laabal mooy li leen mën a génne ci lëndëm kon loolu rek lay taxaw ñëw na jël kàddu nañ maa ngi soññi sama bopp di soññi ndaw ñëpp ñuy daw jéem a góorgóorlu xam waaye fexe xam li am lan la ndax dañoo wax am na loo xam ne am ko ci xamoo ko ñàkkoon ko ci xam ko moo ko gën mun xamoon ne ko sëñ Tuubaa waxee law alima naas maaw naa la baadaru ilaa talabi bu ni nga xamoon li ne fi man kon dañuy gaawantu jël ko waaye nee lamma jaahilahu talabu xayra ñàkk gi ñàkk xam li ma yor man sëriñ Tuubaa moo tax ñu wut leneen kon nag nañ nañ jéem a xam li sëriñ bi andi lan la lan lañ ci war a mën a doxee ba mën a tasee ngërëmam Allah moo ñu dimbali tey ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. daam safar jógal te xalam yaa fi way ete way suwaasir murit yi di bég wayal teraanga yi teraanga yi sëriñ mbamba yaa ngi fu fi dara ne tey Ahmadoo ko def moo ko liggéey nan topp ndigal. ndamal murit bi xam li ko war mooy topp ndigal màggal gi mooy ndigal lu wér moo mat a jëfal màggal gi màggal ko bu wér daal di koy dundal di jàng kay ñaana kay bernde topp ndigal màggal gi day ndamu ndamul lislaam tey li mu ñu defal moo ñu sagal moo ñu sigil bés bee ñu teral ku fi am jàmm bay sant di suy ta waral ngay sant bés baa ngi bàyyi daam yaa ma leen gënal loola waaye man di wax itam bambaraw na leen màggal gi firnde la si bés bii bu ni amul li anna haasal yow mu yow mu sukkur wadduha aka waxtaan ne daam jàng xasida ñu lay teral xeetu cant gi nii la dee ko bàyyi xel iqra bismi rabbika jël xasida tofal bu nu xëyee na sañ say xay te seliti yi sekk jes ne solal palmaan lépp teraanga la ceraak laa fa maxtu ay maraakiis xaftaan bu jot kurus kaala lii teraanga la faslun fii bernde bernde it ci la café meew si xew du tëja lépp teraanga beñeb fariñ ak mburu mbaa sax moom beñeb dugub keke ki met leen dañuy servi cey teraanga yi taaj raxasulal napp teg booli bernde nii lay demee ñuy servi ndox yu sedd yi wala lépp teraanga la ñey mis yu xar ñey ñooñ ganaar ñey saa fixati naa tekki koppin uwaa yaa nga lépp teraanga la ceebub suyeer ceebu ngot cerey taalaa la ja salaat sun orne dañuy servi lépp teraanga la ñeent ak bool juróom ak bool dabi màggal du xat du am seeñu du am ñiit teraanga yee doy tufe couscous mbaa macarona boole yaa ngay tege vermicelle ba mbaa petit pois lépp teraanga la banaana ak orange raisin xeeti bernde la soow piir ak pomme ja day teew ndax teraanga la musuwaar asete kirdan afta bernde la ataaya ak si ngom dina tegu sa lépp teraanga la clim ya sedd